billahi weñ wi dafa reeb baax na daal waaw li ma doon wax rek far vidéo ba lay dagg sa yaram wi ab machine boo xam ne la li ngay lekk fa war a dalu baax si yaram sooy lekk lu bon si yaram bi nga jaxase ñaari machine bi xam lum liggéey am lum liggéeyee ba man laa jàppale def sa xel mi mu dox ni ko yàlla bindee def sa yaram wi feebar bu ci dugg te waru ci ne ne mu génnee ko machine bi ni ko yàlla defee fa xam doole mën a faj feebar bu ci ñëw bu ne waaye su xamul lu ko jox kàttan nu muy fajee feebar ba fa mel ni yow muy dem xare ji rek ba pare ñu xebal la joxuñ la fetal joxuñ la dara yow kenn rek ngay dem di di di engagé ay junni nit machine yaram bi tudd immune système su xamee fruit xam végétaux ah xam euh, ndox ah, xam ay buy ak ay mbuum ay lu baax ci yaram yii suy xam lu bon it dana mën a xam kàttan gu xeexee lu bon li waaye machine yaram boo xam ne ay diw diwi léegi yu bon yi surtout diw yu yomb yi hmm? ay kig masi yeeg jimbo yeeg façon yi seasoning bu dul bu jënde nga def bam saf-saf doon naan ndox mu bëri juus fu mu bonee rek nga jënd juus yi léegi yëpp a bon juus bitim réew Afrique si xem juus yi baax mooy nga jënd fruit bi ci boppam lekk ko loolu moo baax te fruit yi bitim réew yi sax baaxul ba mel ni Afrique de waaye boo neexee bitim réew yi dee lekk ay mbuum moo tax ma di leen ko woon si vidéo yi saa yu ne mbuum man boo ko toggul cere mbuum it mën nga koo def ci ci kaas def ci ndox mu tàng def fi mbuum meeg ndox mu tàng yëngal mu mel ni tii nga naan def sungu su nete si ma leen di woon si vidéo yi noonu tudd Turmeric tea danaa ci bind ñaari tur yi fii mbuum nuñ koy xooyee ci tubaab bitim réew fii boo ko buggee jënd ci internet bi tur wi danaa ko ci bind sunguf si nete si ma leen di wax noonu tudd téeméeri powder naa ko ci bind mun ngeen koo jënd ci internet bi eBay wala Amazon wala ci naari bitigi naari yëpp fañ koy jaay sunguf si nete sauce waaye mbuum mi moom ci internet bi nga koy mën a jëndee Amazon wala eBay man sax maa ngi waaj a xam mbuum pour jaay ku ko ku ko bëgg nga jënd suma bagage yi ñëw sunguf si mbuum dana ci bokk incha allah bagage yi ñëw weer wu dee waaye bu dul manit sunguf si mbuum wut leen ku leen ko yónnee ku leen ko yóbbante from Afrique kon sunguf si mbuum Afrique ña sax xamuñ lu muy jëriñ ku koy def ci kaas di ko naan bët bu set mbala boo ko boo naanee tey xëllëg nga boo baxee tey xëllëg nga def ah te sungu su nete si ma leen wax ni tudd temori powder tudd wi ne si nii moom it ngeen jig di ko jënd di ko naan te ngeen di lekk fruit ak veg ak ndox ni ma leen ko waxee nii te ngeen wàññi xalaat yu bon yi dangeen xam fan wu gudd ak wér gu yaram te seen xel mi dana calm down da ngeen neex deret xalaat yu bon yeeg defante yu hëpp yeeg soxot gu hëpp gi yeeg gi xel mi moo jaxasoo ak chemical yu bëri yi nga xam ne yàlla buggut ko ci sa yaram wi that's the reality docteur yee ko wax du man waaw